jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nduyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme liñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Grand Dakar seet fi kenn koo xamante ne suñu kilifa la suñu baay la koo xamante ne bokk na ci ñi xàll yoon bi ba tax xale yu baree bare bare ñeme muy perbekaay mbay Mbaye eh, wasaare seet ko nag ngir indil ko li nga xamante ni mooy suukaru koor tey jàpp naa ne mbooloo boo ci teralee kenn teral nga ñëpp ndax Père bu ko wasaare indilee teraanga site internet yëpp ñoo maase dajale teraanga bi indil ko Père Bécaye Mbaye ñu ñu di ko ñaanal suñu borom gën guddal fanam lool te mu ànd ak wér ba bépp mbébét bi nga xamante ne am na ko ci njaboot gi suñu borom kàttanal ko dooleel ko defal ko ci lu kawe njortam gannaaw loolu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi euh, ndax nag bu ngeen gisee sax ñu ànd ak caméra yi jël ko mooy teraanga du tuut dañuy bëgg rek ñi nga xamante ne ñoo yor site internet yi mel ni ñun Père Bécaye ak yeneen kilifa yi nga xamante ne jot nañoo liggéey ci làmb di leen defal teraanga bu mel nii parce que bari na lu baree bari loo xamante ni ñu ngi koy taxé wala di ko étiqueté ci ñi nga xamante ni ñoo yor site internet yi ñuy xam ni rek saa su ne defar moo ñu war boole moo ñu war wax lu baax wax lu rafet yooyu per Bécaye Mbaye di ñu wan saa su rek moom moo ñu war gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi Père ñu ngi lay nuyu bu baax wasaare seet si la indi la waaw di am mbégte lool ci wasaare ca dëgg-dëgg wasaare ngeen waxuma la information waaye wax wasaare ngeen ndax teraanga gi ngeen ma indil ah ci baax la bokk ah, ci yéwén la bokk te ci teraanga la lii mooy teraanga teraanga gi ngeen def nag yàllaay fay yàlla na leen ko yàlla fay ngeen am lu ko raw foofu am lu ko ëpp ci weeru koor gi ah ndaxte lii deg ci yëg la bokk am naa ci mbégte nag waaw wasaare moom yàlla na wasaare ci àdduna bi yëpp eh, ba ngeen dem ba nekk ab télévision te yàlla rek a ko moom yàlla moom télé yi moom satellite yi moom moom lépp ah na leen si yàlla cëral di xale du tee am am xel du am jomit te gis naa ko ci yéen di leen gërëm di leen sant bu baax mm-hmm. di leen nuyu di ci seen tur ba jaar ci mm-hmm. encouragé encore ñeneen ñi mm-hmm. yeneen sit yëpp ñu gën a lu gën a liggéey ñu liggéey pour ce pays xam nga liggéey ñu ci bëri yenn saa yi ci sit yi dañ ci wuti vue waaw vue bi na doon lu njëriñ Sénégal mu doon rek njëriñ maa ngi wut vue rek nga wax lu dul noonu maa wut vue nga jaxase ay nit maa ngi wut vue nga tasum réew loolu baaxul booy wut vue da nga parce que boo amee vue te amoo jàmm vue ba du la amal njariñ kon am vue dafa am lu muy jariñ kon na ngeen lu ba bokk ci ñi nga xam ne seeni vue dina indi njariñ ci réew mi dina am jàmm ci réew mi te nii moom bu ngeen dàqul parce que te maa ngi nii dinaa sol sama mbubb mi ngeen ma jox léegi lii dara dàq ko indil ma ay dàll ma yéen bu dee yéen du ma rafle xam nga ki la ki la nga sol mbubb mu rafet bëggul nga rafle kila indil ab dund bëggul nga xiif te loolu moo di àdduna ñaar fi am soloog lekk ak dëkkuwaay te ki la jox lii kat yéene na la kon yàlla na leen yàlla taxaw. mais Père Becaye ñun dañu bëggoon ajuma bu jot képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci ci wàllu presse ñu yëkkati àllarba ba la ko jox. ndax def nga ko ci réew mi waaye boole nga ko ci ay ay nit ñoo xamante ne dañoo féewale woon nga boole leen defar defar googu nga xamante ne ñu ngi koy roy ci yow suñ sañoon àjjuma bu jot ñu lay indil àllarba bi waaw lu rafet la xel mu xel mi baax na yéene gi mat na yàlla yéene lay fay day fay ba fay yéene ngay tëdd fi nga tëdd nit man lum man di ko def yow mënoo ko mais nga am yéene ga yàlla fay na la yàlla fay na ndax am nga xolub joxe ko boo ko ñëwoon nit nga joxe ko loolu ci yéen la bokk loolu lépp ab yéene la ah lenn li nag ah, liggéeyal sa bopp liggéeyal sa réew liggéey ngir say mbokk ci la bokk ndaxte ñaar ñu jote nga fexe ba nu déggoo ñaar ñu xamante wul nga fexe ba nu xamante ah ñaar ñu réeroo mm-hmm. nga gindi leen loolu yëpp ci defar la loolu lépp yaakaar naa ci jaamu yàlla la bokk la bokk woor fu mu toll muy jaamu yàlla loolu nag du ci du ci du ci du lu nu yaroo la daal xam boo yoroo ci kërum ngéwél boo xamante ni mm-hmm. papa ak yaay ci noonu lan mos di dund boo màggee il faut nga jële dund ci noonu mm-hmm. loolu nag la si sant yàlla nag yàlla mën loo ndaxte neneen mm-hmm. mais bi mu mel loo ñu a sante ak nit ñi ñu mën a déggoo ak nit ñi te loolu nit ñee la ko may ki ngay fexe ba mu dégg lu baax mën koo wax mhm. nit mën naa dégg lu baax te ko def dëgg la nit bu déggee lu baax def ko ci mooma mhm. bis bu jot saa woo yow nga dégg jëf ju baax mhm. boo ca royee rek c'est parce que da baax am neneen boo melee neneen doo ci nu yàlla may am xel yàlla may nu nite yàlla may nu dégg dégg dafa am solo waaw hmm. ah, parce que naa wax wax hmm. xamoon lu tax mu wax hmm. loolu du la wax lu nit toog comprendre dëgg la mbay wallaahi <laughs> waykat bi di wax wallaahi <laughs> waaw yàlla na leen yàlla sàmm yàlla yàlla et puis xiir ci def lu baax waaw yàlla du parce que dañuy gis ab waay bu ñu romb fii def ay njaaxu moom ak couleur yëpp nga xas ko. Mm. waroo koo xas. déedéet nu mu nu mu nu mu nu ah. mm. nu mu mel. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. mu mel nii ñaanal yàlla bul def lii rek. yàlla na yàlla di xiir ci lu baax. amiin waaw ndaxte àdduna moo mel noonu. Mm. boo gisee ku mel neneen nu nu nu wala mu def lu jaaduwul neel yàlla bu ma ci yàlla xiir yàlla bul parce que la waral loole yoo xamoo ko mhm. bokku leen ndey bokku leen ah, ku leen mhm. mboot mhm. bokku leen i mbir bokku leen i bagage xamoo nu mu demee yàlla bu ma ci yàlla xiir loolu ma am solo tey ñu indi la bi indi xam naa ne diwliñ bi du ñàkk sax garawul ñu def publicité rek sa diggante ak borom diwliñ bi parce que indi nañ teraanga bi waaye xam nañ ne bu lépp mënoon nekk li ñu jëndal la ko parce que seen diggante. waaw kii kii sama jarbaat la. Abdou Aziz yàlla na ko yàlla taxaw. Mhm. yàlla na ko yàlla jàppale. Mhm. yàlla na ko yàlla sàmm. Mhm. dafa di ku baax di sama jarbaat bëgg ma. waaw ne la ñuy waxtaan man ak moom. waaw lu ko jaaxaleen mu wax ma. Aziz sama jarbaat la. Aziz dafa baax dafa am jom. Mm-hmm. dafa nangoo liggéey mm-hmm. dafa am fula te dafa bëgg lu baax nit day bëgg lu baax mm-hmm. te loolu na lu mu doon la baayam liggéeykat la ndeyam sëyal na baayam macha allah fii la yaayam jógee ci Grand Dakar fii sunu jigéen la dem fa mu dem ba mu fa demee ba léegi dellu si waatul bis bu jot loolu laa ko fee ñëw kalaame mosu fee ñëw def dara am jom lool loolu tamit xam loolu dafa baax dafa am solo. Hmm. loolu suñu relation nag man moom mënuma laa wax lépp parce que moom li ci ne <laughs> xajul ci xajul sax ci xajul ci déedéet hmm. dafa baax. Hmm. lu ma neex laa koy wax man tam moom it comme maak moom ñoom mel ni daal ay moroom daal. waaw loolu lépp nag ci moom la. ah yaakaar naa dafa tukki sax yal na ko yàlla may mu ñibbisi jàmm. li ci am na jom. jom dafa baax ci nit. nangu liggéey. dafa baax ci nit te loolu lu mu tàmm lu yàgg ci moom la am jom nangoo liggéey am fulla am caractère am mm-hmm. bëgg lu baax bëgg avancer doon topp ci tànki waajuram fa bàyyam fa ka bàyyi woon ci kër alaaji Malick ma nga fa mm-hmm. loolu rek loolu rek dara la sa mm-hmm. bàyyi bàyyi bàyyi la ci bërëb nga ne fa loolu am na solo waaw saa bu bàyyam gestoo yem ci moom bu bàyyam di ziar ci moom loolu dafa neex sant yàlla lool moo tax ma koy ñaanal fu mu tol moom ak rakkam ak ay njabootu baayam yëpp yàlla defal leen jàmm. Hmm. yàlla taxawu leen yàlla jàppale leen ndaxte ay ñu nangoo liggéey lañu. Hmm. waaw gannaaw loolu euh, li doon wax sànq rek ne Père Bécaye na yoon wi bari na ci ay xale yoo xamante ne buñ leen wóoloo. wala ñu ñeme leen ba nar leen ba namm leen a jox yenn ndombal tànk yi suñu bàyyi as Bécaye Mbaye joué na ci rôle bu baree bare bare li ko mën a wane firne mooy wasaare gi nga xamante ne ñu ngi fi ki ñu jiite dooleel ñi euh, topp suñu ginnaaw yëkkati alal ju bari investir ko ci lii comme koy jëflante wala comme koy teg ci loxoom amaana mosu koo gis dañuy déggante téléphone rek loolu nag confiance la boo xamante ni dox na ci diggante kiy liggéey ak ki muy liggéeyal gannaaw loolu dañuy woo sëñ Basiru su ko defee moom it mu ñëw comme moom mooy suñu kilifa moom mu mu sànni ci ay kàddu su ko defee ñu gën a muy sëñ Basiru dégg nga li nga xamante ne jot nañ ko cee wax lépp. waaw asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yëpp di nuyu suñu papa Père Bécaye di la présenter rek brièvement groupe bi Baye Jili mi ak Ousin Male ñoom ñoo féete ci làmb ji ñooy reporter yi. Adama ak euh, kàggu ñoom ñaar ay caméraman lañ man nag euh, man lañ dénk barab bi ma ànd ceeg ñoom it ñuy liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu yomb ci ñëpp la ndax ay ndaw buñ bokkee bëgg-bëgg teel a xam liñ bëgg rek day da leen di noppal euh, idée bi nag ñu koy rafetlu bu baax a baax ci bi mu fi bi tukkee ci kilifa gi ndax jiili wax na ko ci biir waxam waroon nañ saa su nekk ñuy ñëw di joxe àllarba ndax am na loo xamante ne nii ñun ñëpp ameel nañu la ko képp kuy reporter rek ameel na la ko tey mbër bu tiimee bàyyi jiili mi mu leer ko ne jiili magu ko mu naan ko peer c'est parce que liggéey boo liggéey bu am solo la te reporter yëpp remarqué nañu loolu mbër yi sax dañuy dem di juum naan leen peer peer peer c'est que peer am na liggéey bu am solo bu mu liggéey ci làmb ji muy jeunes yi nga xam ne ñu ngi doon doorandoo ak moom ba doon li ñu doon tey ak ñun ñi nga xam ne nii tey ñeme nañoo jël suñu alal investir ko ci domaine bi parce que ñëw nañ fekk ñu ratisel ñu terrain bi indi benn euh, doxalin ak benn dundin goo xamante ni dana tax képp ku yor sa alal ñeme nga ko investir ci site internet wala ñeme nga ko investir ci làmb loolu nag cër la boo xamante ne nii yow yaaku ko yeeyoo ñu lay delloo njukkal di la ñaanal nga yàgg suñu kanam bu baax a baax a baax a baax ba lépp loo xam ne nii yéene nañu la ko wala keneen yéene la ko rek mën fee ñëw jëflante ko ak yow en tout cas daal kàddu yi li muy gudd ak li muy gàtt yëpp lenn la rek mooy kàddu yi cant la kàddu yi ngërëm parce que bu ñu bu ñu bu ñu amee fit rek ci domaine bi wala ñoom reporter yi tey ku ci ñemee jóg taxaw ne man reporteru làmb laa di ko tiitaroo rek c'est parce que seen aîné yi wala seen papa yi fi nekkoon am na liggéey bu am solo bu buñ ci liggéey ba ñu ñeme koo tiitaroo kon jërëjëf Père Bécaye ñu lay ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal euh, kooru jàmm yàlla suñu borom yàggal sa taxawaay nga am wër gën a am wër ba lépp loo xam ne nii yaa ngi koy liggéey rek ci rattaxal diggante yi suñu borom sotti sotti ko may la ci ndam ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jéggalu nag ci kàddu yi ndax guddi na te fiñ la fekk ak koor gi <laughs> day xaw a metti ci mag <laughs> mais ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax encore une fois. Euh, gannaaw loolu dañuy jox Ouzin moom it ñoo bokk ci bërëb ba di ci yëngu man ak moom mais mu nekk koo xamante ne ku baax la. ku woyof la ku neex a nekkal la moom it su ko defee mu mu yëkkati ci ay kàddu rek Ouzin bisimilah. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni ma koy waxee rek oto moom lu ma fees fees nuyu ma sama yaay xaj na ci ñaari question rek laa amoon pour Père Bécaye parce que gis nañ ni euh, liggéey ci télé yombul ba tax na tey mën ngaa ñëw doo doo sawar tey mën ngaa ñëw amee bob buy métti tey mën ngaa ñëw amee naqa wala amee tiis yàlla tere saa bu ñëwee kenn du gis loolu ci ci ci ay bëtam kenn du gis loolu ci ci ci kàddoom kenn gis loolu ci moom benn bi mooy boobu naka la koy géeree ba mën cee génn ñaareel ba mooy gis nañ ne ci làmb lay yëngu te yàgg na ci lool est-ce que mës na cee am loo xamante ne nii dund na ko ci mu metti ko ba bés boobu mu ñibbi toog xel mi génnul ci loolu est-ce que loolu mës na koo dal ci làmb moom Père Becaye ñaari question yooyu rek laa amoon. ku ñëw kër père Bécaye du ñàkk nga sànni kon li mu wax oto lu fees fees luyul ma yaay xañ na ci père dégg nga de. waaw waaw waaw ah, bu njëkk bi. Hmm. di gërëm. Euh, Basirou Basirou. Hmm. waaw di gërëm kàddu yi rafet na. Hmm. lii nga ko géré bi. ah yal na yàlla taxawul leen jàppale la bàyyi la animateur. ah ak say caméraman bàyyi la ak ñiy liggéey ñëpp. loolu la ka ka leen wóolu ba dénk leen daa am lu tax mu wóolu leen dénk leen bu ngeen yoroon yenn melokaan yi du leen denk hmm. nit ki dénk nag moomul boppam hmm. waaw da ngay sàmm bu baax la tax kooku jël alalam investir ko def ko ci ni la kaay téyel ma hmm. téyel ko bu baax bu ko yàq bu la ku la ko nar a yàquloo ba ko yow nga ci leen la liggéeyloo loolu laa lay gërëmee di la sant et eh, sama Ouzin nag moom laaj bi mu laaj benn bu njëkk bi Ouzin man damay am problème comme ñëpp. Mm-hmm. damay jaaxle comme ñëpp damay am tiis comme ñëpp damay am feebar ko feebar comme ñëpp damay am bu ñàkk xaalis comme ñëpp yooyu daal ñëpp may daal mm-hmm. waaye boo xasee ba taxaw ci caméra bi yooyu yëpp waratul feeñ mm-hmm. yow li la war mooy nga indi humour parce que ñi lay so ñi nga ñi seetaan am na ci ñoo xam ne danoo feebar am na ñoo xam ne danoo am tiis bi nga am am na ñoo xam ne danoo ñàkk amuñu dépasse am na ñoo xamante ni reeraguñu te yaa ngi toog di wax ak ñoom waaye ñooñu ñëpp nag dafa am nga am melokaan goo xam ne moom ngay waxee ak ñoom dax seen xel dal mm-hmm. yow yaa leen mën a indiwaat yow loolu mooy sa métier mm-hmm. ndaje mi problème ya mu am am nga ko mais du tee ah, comme que yow yaa choisir nekk taskatu xibaar mm-hmm. yaa choisir nekk animateur yow donc yaa choisir pour mën a bégal nit ñi comme que yàlla dogal na nga war leen a mën a bégal bégal leen yow loolu rek damay génn fii ci sama kër ba fi loo xamante ne ni léegi laa koy waxtaan ak sama kër sama waa njaboot semaine passée maa ngi dem di liggéey te fekk na maa am ko malade. Mhm. mais kenn xam ko kenn yow ko man dem def sama nit ñi ma bu ma génnee nag. Mhm. wéetoog samay problème mhm. ñi ma seqal ñu xam ko waaye du ma dem ci téléphone nag di wane ah, di triste loolu rafetul. ndaxte am na ñu taxaw di la seetaan. te ñooñ ci yow lan yaakaar pour seen xel dal. beneen bi ci des mooy naqari ci biir làmb. waaw mënoo nekk ci biir liggéeyukaay. ñi nekk ci seen entreprise sax dan fay am ay problème mhm. seen digganteeg seen seen collègue de travail seen digganteeg patron ba mhm. seen digganteeg keneen client ba wala nangam noonu dong la mel ci làmb ji noo cee def man def naa ci làmb ji tey ji vingt quatre ans mhm. soixante quatre vingt ci làmb ji hmm? quatre vingt ba deux mille vingt et un du vingt quatre ans waaw vingt bu la neexee nga nekk ci mbir da nga ci am loola neex. Mm-hmm. da nga ci am loola naqari. loolu mënu cee jën ñàkk. Mm-hmm. mais de toute façon loolu koy surmonter te xam ne ci parcours bi la bokk. Mm-hmm. loolu bu boo boo yeggee ca ci la moom ngay toog xalaat ko ni ah nangam ak nangam dal te noonu noonu jafe yooyu nga ci am. ngay rectifier li nekk ci sa kanam. am naa ci ay jafe yoo xam ne jàngal na ma àddina. am naa ci yoo xam ne jàngal na ma nit. am na ci yoo xam ne jàngal na ma làmb. waaw milliard làmb mënul ñàkk parce que kii daa jógee Grand Yoff kii jógee Xaar Yàlla kii jógee Grand Médine kii jógee Grand Dakar mhm. kii jóge Fuuta kii jóge Kolda Bignona ah mhm. ma kii jóge Fuuta kii jóge fu ne mhm. ngeen ànd yéen ngeen jaan ngeen daje ci bërëb bokk leen xalaat il faut yenn saa yi ngeen réeroo yenn saa yi ngeen juboo mu nekk loo xamante ni symbole la ci bantamba bu ñu nee loolu moo njëkk a mhm. daw. Mhm. naka ngeen di dundee loolu ak moom mi nga xamante ni àdduna. waaw woyu Thione Seck ci bantamba ni koy dundee mooy sant yàlla rek. Mhm. yàlla lañ koy dundee ndaxte Thione bam koy def xol la ko defee. ba koy dégg xam nga ko ah. dafa mun na ci biir dina newoon naa la dinaa la wayal bantamba. waaw noonu rek la demee noonu la ma waxoon dañ waxtaan rek. maam mm-hmm. lu ma ko doon woo mu ne ma loolu du ma ko def li may def mooy dinaa la woyal ba ndaxte gis naa ni ah, da nga mel ni ku demoon université ñëw créé benn émission boo xam ne Sénégal ku añ ku reerati ba pare <laughs> mardi toog sa télé nit ñi di xool waaw mu ne ma loolu loolu loolu loolu jar na woy mm-hmm. parce que du ñëpp ko mën loolu lépp yàlla la mm-hmm. yàlla mooy def noonu doomu aadama fexe ba bul ci gis sa bopp rek. Mm-hmm. fexe ba xam ne nag lii sunu borom a ko dogal. Mm-hmm. Ah, boo ko defee boo ci gisu sa bopp di dem modestement rek yàlla dina la ci gën a taxaw. Mm-hmm. mbaxane li tax mu nekk ci bopp bi xam nga lan la oyof. képp bu di diisoon léeg nga sànni ko. ah oyof donc. bu tolloon saako suuf kër la tegoon saako saako kii bi ni la mooy mbaxane mi dee koy sol kenn du sol mbaxana ah daa oyof donc moo tax ñu teg ci ko xam nga ni kii sonalul kenn. ah loolu dong la dañu oyof rek te sant yàlla. dëgg la xam naa ne waxtu bi li ñu téye ci waxtu bari na mais dañ lay jaajëfalaat bu baax di kontaan di ñaan yàlla nañ ko fi yàgg indi teraanga bi yàlla nañ ko fi yàgg indi yàgg la fee fekk yàlla bàyyi la suñu kanam ba ci kanamu kanam ndax suñu sakk nga. ñun ñi nga xamante ne ñooy ay xale waxuma ñi nekk ci làmb waaye ñun ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ suñu sakk nga saa su ñu la gisee rek suñu xol day gën a sedd ci kaf gi ci dal gi ci teey gi ci mën a fo ñu lay ñaanale suñu borom gën a guddal sa fan nga ànd ak ci barke Cheikh naa Cheikh saat Bou ci barke sëñ Abdou Khadir Jeylaani ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax a baax. amiin amiin amiin mm. amiin ñooñu nga tudd. Mm. ci ñu baax ñi sëti yonent yooyu. Mm. ah ma leen di ñaanal. li ngeen def yàlla na barkeel. yàlla na yàlla may leen ci ndam yàlla na defal leen ci ay jaloore ubbi leen ci teraanga ndaxte kuy liggéey ku ne da nga cee bëgg am dara yàlla na leen ci yàlla may xaalis bu bari ah parce que leen kat ka investir day am lu mu bëgg a mhm. kon loola nga mu bëgg a yàlla mat ci barke yonent bi te yàlla dina leen ko defal di gërëm ñëpp di gërëm milieu làmb làmba tax lii lépp làmba ko waral moo mhm. melu woon ne nañ ci làmb ji kon du nii mhm. kon làmb ñun fi ka ne di fa am sa teraanga. Mm. foo toll na ngay ñaan yàlla mu gën a dem ci kaw. Mm. nga ñaanal promoteur yi tëgg làmb ba tax nit ñi mën laa ràññee. Mm. ñoom ñëpp yàlla boole leen defal leen jàmm. loolu daal laa leen di ñaanal di ko ñaanal ñëpp. kuy promoteur kuy waa CNG communicateur traditionnel amateur reporter yëpp yal na leen yàlla defal jàmm. ak manager yi sama xarit yi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon ñu leen di jaajëfal bu baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf